man sama yoon dafa metti lu ne laa ci daaj sama yoon dafa metti lu ne laa ci daaj kon lan moo waral may dem nga ma du dem jëral na ne aha lan laa la def yéene naa la salaam mhm. moo tax mënuma si tax wax kii bi gis question bi daf ma ma feebar sonn ba bëgg a dee ma mhm. dal metti dafaa mi xam na li may wax mhm. dinaa ay weer yoo xam ne mënuma dara bonjour bonsoir chers internautes amis fidèles de Web Info TV chaîne bi nga xam ne moo leen indil information yu sûr en temps réel ànd nag ak princesse et ses ci émission bu bees beneen édition boo xam ne carrément à chaque fois nii lay demee ci chaîne bu mag bi comme ni ma koy waxee rek tey nag dañoo génn suñu zone de confort comme à chaque fois nu ñu koy defee rek ci princesse et ses sorties daal di seeti ci biir ndaanaan daal di seeti koo xam ne bu ñu tuddee ay maamam ngeen xam ko bu ñu tuddee ay maamam ngeen daal di kontaan du kenn ki nga xam ne mooy Kani Faye Kani Faye nag di sët ci kan ki nga xam ne mooy Njaga Mbay Njaga Mbay nag kenn dootu ko présenté fi nga xam ne mooy Sénégal bu demee itam am na fi ay œuvre yoo xam ne bàyyi na ko fi ba suñu wéetee rek daal di dugg rek daal di koy seetaan Kani Faye nuyu naa la waaw asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Sénégal lay wax mhm. di nuyu waa Web TV ñëpp mhm. ak waa Kër Ndaanaan mhm. KM TV ñoom ñëpp maa ngi leen di nuy di la nuyu yow tamit princesse bu baax a baax di kontaan ci dalal la fii tey. Mm-hmm. maa ngi lay fay bu baax a baax kan yi fay gis nañ dalal bi ñu dalal fii nga xam ne mooy sa kër ñu lay remercier waat bu baax a baax. merci dañuy dugg nag dans le vif du sujet parce que ku ne ni yi fay. Mm-hmm. ku ne kan fay daal di wax li nga xam ne mooy way ku ne way daal tudd ki nga xam ne mooy sa maam sa maam mooy kan moom mooy Ndiaga Mbaye. Mm-hmm. kan mooy kan yi fay. waa kan yi fay de benn jeune la bu nekk ci aar bi rek. comme ni ko waxee. juddu ci famille ndaanaan mhm. laaj njaga mbay di maamam jur yaayam mhm. euh, mu bokk ci famille gawlo bokk ci famille géwél mhm. kooku mooy Kani Faye Kani balaa ñu ci li nga xam ne mooy euh, sujet de conversation bi est que doo am loo ñu may rek may ko internet ñi nga xam ne ñoo lay seetaan waaw coow li coow li léegi mu leer leer na ba noppi ana Kani Faye mi la mbéréw me ma doy du léegi mu leer te leer na ba noppee coow ci pind bu teen bi gaañi amul baag laa léegi mu leer am nga baag del baawal gaañi soxla yaa jara woo kani ma laa kani loolu moom amul leen duñ ciy teg est yemale fii émission déedéet ëpp naa def <laughs> parce que li ñu may ne may ko internet yi neex na trop mi ngi noonu te lii ñëwee daaq macha allah yàlla na mm, baat bi wér eh, dañuy daal di dugg rek ci li nga xam ne moo ñu fi indi nag mooy waxtaan ci ak ki nga xam ne mooy Kany Faye eh, mhm. ginnaaw nag bi ñu waxee kan mooy Kany Faye ak Kany Faye fan la bokk dañu bëgg nga wax ñu sa parcours parce que nit ku nekk rek Kany am nga jaar-jaar am nga parcours Kany lan mooy sa parcours waaw Kany parcours am mooy mhm. li ma la expliqué léegi rek mhm. man maa ngi nii nekk seen doom nekk doomu réew mi mhm. am loo xamante ni bëgg naa ko muy musique mhm. parce que nit sax mhm. di nga doonu dara te fekk na bëggoo ko mais man dama ko doon juddu ci yaru ci ba pare bëgg musique parce que bëri na ay lu ma doon def maanaam ci wàllu létt laa doon yëngu ci salon de coiffure yeeg yooyu waaye des fois ñu ne doonu day dëgër buy ñëw sax dalay bett donc nag Kany mi ngi nii dugg na ci aar bi doonu baayam doonu maamam macha allah. Mhm. te nag di leen wax ni dinaa ñëw ak doole ndax aar bi. Mhm. du ma ci duma ci com macha allah. Mhm. di ñaan du ma ci si caaya laa ci. bokku ci ci ñaari côté. tama ñaari boor macha allah fu ma neex tëggee. kon man dama cee bokk kenn boolewuma ci. kon da nga cee bokk kenn boolew la ci loolu neex na waaye euh, kan yi dafa am loo xam ne tamit dañ la ko bëggoon laaj dëgg la nag sa maam euh, ki nga xam ne mooy El Hadj mbay Mbaye kenn dootu ko naatable fi nga xam ne mooy Sénégal mais yow en tant que sëtam mhm. lan moo la poussé pour nga way parce que comme ni nga ko waxee rek nekkoon nga ci yeneen activité mais lan mhm. moo tax nga jël euh, sa détermination yëpp daal di koy teg ci way bi waaw mooy doonu li ma la wax léegi rek loolu la waaye doonu mu dëgër te tamit nit ki sax li ma la ni mën nga doonu dara doo ko doon mhm. waaye doon nu ko ba pare doon ko moo yombul. Mhm. macha allah te man nag maa ngi ci jéem lu ma mën ndaxte. Mhm. li ma la wax léegi ne la askanu ngawlo mhm. ku leen xam xam leen ci way ak cosaan. sama yaay bokk ci askanu ngawlo njaga mbay di baayam. lañ naan la ca maam sëtu jël. léegi nag man maa ngi nii bëgg naa musique maa ngi ci nekk. doonu sama maam. doon ko macha allah. moo ngi noonu euh, ki nga xam ne mooy kani kani fay nee na. li ci ma li ci li ci maam sa ta koy jël te yow jël nga li ci sa maam mi ngi noonu nag <laughs> moo ngi noonu loolu loolu neex na mm-hmm. mais ki nga xam ne mooy El Hadj Ndiaga Mbaye mm-hmm. comme ni ma ko waxee sànq rek fii ci Sénégal duñ ko présenté wati mm-hmm. te am na ay jikko yoo xam ne macha allah amoon na ko sénégalais yu bëri daal di doon roy ci moom yow mi nga xam ne yow yaay sa tam yan qualité nga mën a jël ci moom nga jël ci moom sama maam li ma mën a jël ci moom bari na ci yar macha allah ak dalam ak ñime njaboot. sama maam dépense suba sax daaw ko woon denc bi muy dund. Mm-hmm. bu nit mësaan na ñëw nekkoon ko njaga mbay damaa am soxla day yëkkati dépense subaam jox la ne suba suba yàlla la. Mm-hmm. yar ñu ci loolu tàggat ñu ci. Mm-hmm. ñun gëmuñu sax star. star star lu gëmuñu ko ndax dañ ci juddu. kuy samaam maam njaga mbay nga xamante ne bu tëllaan fii ñëpp a koy ndiiraan macha allah. mu oyofal boppam. xale bu ndaw mën na ko tardeel fii nii ci biti sama maam da daan ñëw bu daan ñëw kër ga dangay ngay gis xale yi dañ koy def mu taxaw di waxtaan ak ñoom mm-hmm. c'est parce que nu mu oyof bu mu oyof mm-hmm. ak yërmande gi ci moom mm-hmm. sama maam tey jii bu doon dund ba léegi mën naa ni sama musique dépassé na fii lu tax nga wax loolu waa parce que dina ma taxaw taxaw boo xamante ne nii xëy na li may li may li may manqué nii duma ko am macha allah mu ngi noonu. ñoo ko déggandoo kon euh, am na ay qualité yoo xam ne euh, mu ngi woon ci sa maam te gis nañ ko ci ki nga xam ne mooy euh, Kany fay mm-hmm. voilà mu ngi noonu gis nañu tamit que ne. Mm-hmm. sànq yaa ñu koy may ci suñu début émission yaa ñu may benn benn. benn intro. Mhm. intro bu neex waaye intro bi dafa xaw a laal ci li nga xam ne mooy euh, musiku démb. Mhm. woyu démb. Mhm. waaye nag kani kenn xamu ko tamit ci musiku démb kase mu bàyyi foofu dañ ko xam tamit ci musiku tay mais ku nekk rek am na foo xam ne fa ngay gën a nekkee à l'aise yow mi nga xam ne yow yaay kani en tant que chanteuse yow fan nga gën a nekkee à euh, ci musiku démb bi wala ci musiku tay bi. waaw man fépp laa nekk à l'aise tey jii su ma woyoon ci musiku tay nga ne déedéet. c'est parce que li ma la wax léegi ne la doon moo ñuy moo ñuy tooñ des fois. parce que mhm. traditionnel bi day nekk ci yow même soo ko bëggul day nekk ci yow. Mhm. parce que deret la. Mhm. bu dee tey tamit foofu laa gën a mënee. parce que sama son bi ma génnee bu yàggul da te tafaa daabo def ko. loolu musique gu tey la ñu indi. ay parole yu am sens lañ ci wax. ku ko déglu di nga xam ne dañ koo dañ koo préparé. muy son bi mu mujjee génne muy liilaan la. te tamit ñi ngi liggéey ci loolu incha allah kani bu génnaatee dinañ xam ne. ay como yoruñu ko. <laughs> kan yow ragaloo de. déedéet tuuti ragal. <laughs> ah kon ah ñoo ko déggandoo internet yéen ñi nga xam ne yéen ñii seetaan kani nee na moom fu ñu ko indi rek mu daal di wuy si mhm. fu ko teg rek mu daal di wuy si que muy démb bi ko muy tay bi ni ma la mhm. ñaanaloon sànq rek laa lay ñaanalaat yàlla na yàlla na baat bi gën a wér amiin su ko defee ngay gën a bëggal ñi nga xam ne ñoo la bëgg tamit allahumma amiin <laughs> waaye nag kani mhm. euh, musique dafa yaatu Mm-hmm. nga nekk ci benn milieu boo xam ne dafa xaw a metti mm-hmm. xaw a tàng mm-hmm. foog nga am ku la jàppale pour nga mën a dem Kany instant yi est-ce que yaa ngi jot ay contrat contrat yi mu ngi dugg wala duggul non contrat yi moom fi mu nekk nii mën naa ni dugg na duggul loolu liggéeyu tafaa la sax waruma ci xuus mais ñun soxla nañu jàppale bu baax a baax parce que amuñu producteur ñooy dem ak suñuy moyenu bopp dafa jàpp fii ma jàpp fii sama yaay jàpp fii. Mhm. ñun rek la. Mhm. kon bu ñu amee tam koo xamante ni daf ci dolli si pour jàppale ñu tamit dañuy jël. Mhm. parce que fii ku ñeme ku nekk dañ laa dee te kenn mënul ku ñu jàppale rek moo am. te ndaw laa donnu naa ko ci sama maam. alaaji njaga mbay ñëpp xam nañ ko kon sëtam war na fu mu jógee ne lii dama ko bëgg a def aw ci sama yoonu maam war nañ ko mën a jàppale bu baax mais jàppale bi des na mën naa ni ku ñëw nag dolli ku si mhm. ñu jël parce que ñu ngi dem ak suñu bopp xaaruñu kenn mais ku ñëw dolli si ci tamit ñu jël mhm. parce que loolu rek la ñu soxla mais kan est-ce que nekkul que da nga toog di xaar contrat yi parce que nee nañu nit boo bëggee dara yow yaay dem uti ji ko est-ce a ngi nga xam ne war na tax yéen ngeen am ay contrat parce que tamit boo leen toogee benn place di xaar contrat yi dina xaw a doy waar de tooguñu benn place sax de mhm. parce que affaire yi dafa am benn affaire boo xam ne dama ko waxoon ci affaire Sonko ne artistes yi man maay seen sonko loolu tamit yàqal ñu lu. non loolu non moom foofu moom foofu. Mhm. foofu moom danga ma koy baal ndax dama fay ñëw. <laughs> foofu moom bu ma fa dagg moom. mi ngi noonu. Mhm. waaw loolu la mais tooguñu di xaar. Mhm. parce que Tafa xam na li may wax. mi ngi nii taxaw sama manager. dañuy jug dañuy daw fu nekk dañ fay dugg mais li ma lay expliquer léegi nii la. dafa am lu ñu tënk rek. waaye loolu dinañ ko leeral léegi incha allah. Mhm. wax leen ni lii moo tënkoon kani ba yu ci bari boolewuñ ko ci. Mhm. mu ngi noonu kani euh, ñu koy fàttali rek euh, artiste la fii nga xam ne mooy Sénégal ñi ñi xam ko daal di koy bëgg. Mhm. daal di koy safoo euh, waaye kani danga di ndaw nañ koy fàttali danga di ndaw doon xale. am loo xam ne yaa ngi koy séentu. ba pare nga bokk milieu bi ak yeneen i ndaw ñoo xam ne ñu ngi fii mën naa lim ki nga xam ne mooy soxu bébé ki nga xam ne mooy Jayla wala Jayna est-ce que yow yaa ngi dem euh, euh, ci yeneen artistes yi di am ak ñoom ay rapport wala di gisante ak ñoom wala di déggante ak ñoom. waa artistes yi mën naa ne. Mhm. jàmm rek laa sekk ak ñoom. Mhm. fu ñu dajee dinañ nuyoonte. Mhm. bokk ndey ak baay parce que milieu bi la aar la dañoo bokk lu ñuy def. bu ñu tasantee ku ci nekk di nga may sa moroom jàmm. mais duggante bi ak yooyu moom amul suñu diggante ak ñoom parce que mhm. da ngay toll benn moment boo xam ne yaa ngi liggéey yow tamit loo xam ne pour boo ko génnee say fans kontaan mhm. jot amatul mhm. loolu rek la mais fu ñu tase jàmm lañu sekk ak salaam mais mais mais Kany est-ce que jotul nga jug euh, euh, nga jug daal di def lu même bu dee sax benn featuring nga def ko ak ñoom parce que ñoom tamit xëy na tajuluñ la seen buntu boo demee ci ñoom rek di nga di am résultat waa dem ci ñoom bi dina ñëw parce que comme li ma la wax léegi que ni. ay mhm. artistes lañ ñun ku ci nekk da ngay sentir sa morom muy ñoom di man. Mhm. ku ci nekk boo ma yëgee ñoom bu ñu ma yëgee ñu ñëw def ko ak man man tam su ma leen yëgee def ko ak ñoom. Mhm. waaye liñ naan lu jot yomb xëy na bu ñu demee ba miinante bi dugg yooyu yëpp am. loolu amul problème loolu moom. lu yomb la pour man. Mhm. parce que nekkul lu ñuy forcer nay nay naturel rek. Mhm. loolu la moo ngi noonu euh, mu am solo torop mhm. mais dafa am loo xam ne tamit daf ñoo xawoon a jaaxal sànq yaa ngi ciy ñëw ma daal lay dagg. parce que dama bëggoon introduir sama bopp. ki nga xam ne mooy Tafa. di nekk fële ci Art Vision gisoon benn initiative bu rafet boo xam ne daf ko defoon daal di dajale li nga xam ne mooy plus de neuf personnes ay jigéen ci mois de mars bi daal di leen yóbbu fenn pour ñu peut ñu def ay activités je sais pas muy mm-hmm. effort. Mm-hmm. waaye dañ la faa gisul. ba pare ba loolu jàllee dañoo gis tamit loo xam ne wax nga ko mooy que ne yow waykat yi fi nekk yow yaay seen sonko. Mm-hmm. fan nga teg loolu ak lan moo tax gisuñu la foofu. waaw li tax ma wax loolu nit da ngay gëm sa bopp. nit da ngay gëm sa bopp. parce que artistes yi ku ci nekk boo toogee da nga naan man maa fi dàqaway. pourtant loolu gëm seen bopp moo tax. te bi ma koy wax artistes yi may seen sonko. maanaam dama ne man li may def dama koo mën. man foofu laa waxee. mais yow li nga li nga mën nga baal ma maa ngi lay dagg waaye yow euh, Kane li nga mën la ñeneen ñi mën mais fan nga teg na yow yaay seen sonko. waa gëm-gëm la rek. danga gëm na yow yaay seen ku ci nekk boo taxawee sa baat daw na sa yaram ku ci nekk sa bopp nga gëm. wala mhm. ngaa gëm kenn. Mhm. loolu fierté la rek ci sa bopp. Mhm. mais taxul tamit ku ci nekk la nga nekk di ci bay sa waar yaa ngi ci te nit ñi bëgg nañ ko. mais bi ma waxee loolu warul tax programme yu bari booleetuñ ma ci. ah programme yu bari booleetuñ la booleetuñ ma ci programme yu bari woowatuñ ma. kon li ñuy wax que ne li nga wax noonu dafa am ay répercussions ko dëgg la. waaw mu yàqal ñu nag lu bari sax nag. lan moo tax ñëw lan moo tax nit ñi ñu ñu seen xol seen xel tollu foofu lan moo tax booleetuñ la ci programme yi. parce que dama ne artistes yi man maay seen sonko loolu la ñuy bañ a dégg. moo tax lu bari boole wuñ ma ci maag Tafa ñu galeere lu metti sax nag su ñu xamee ni sax man la bu ñu ma invité wala dara ñu xam ni kani moom moo waxoon lii. Mhm. ñu ne arrêté nañ ko duñ ko ci boole. ci loolu ma wax. mais kani loolu doy na waar de. yow ngay artiste nekk xale. ñu daal mm-hmm. lay téye sa yu bëri. waaw parce que Sénégal la nekk te Sénégal dañoo tàmm di néewal doole nit ki. xëy na am na ñoo xamante ni si dinañ la jàppale te yàlla tax parce que du ñu bëgg ku ñuy toroxal. Mhm. mais nga nekk ci milieu. Mhm. say moroom nekk ci. Mhm. am na ñoo xamante ni am na nu ñuy doxaleek yow. day day compliqué. day compliqué. day compliqué te te aar bi li ma a wax léegi ne la dañ bokk boolewuñ ma ci dama cee bokk. donc nag ma nekk ci. nekk xale soxla jàppale nag bu baax a baax. jamono bii regretté woo li nga xam ne waxoon nga ko parce que moo la yóbbee li la dal yëpp. non regretté wu ba ci dara nag. regretté wu ma ci dara parce que dama ko wax ndax gëm-gëm. wax ko ndax doonu li ma doon doon ko war a def sama métier ni ma ko bëggee. bokk ci famille ndaanaan sentir nit ñi ngi wax lu gën a garaaw lool te teewul lu ñu def dañ leen ci boole mais pourquoi man. amoo ñan ñan ñan ñoo la ñoo ñoo tee sa lu bëri jamono bi. waaw man xaw ma parce que ñi lay xeex doo leen xam yow ñi lay xeex tey xamoo leen boo leen xamoon kon doo sonn. mais am nga ci tuuti aperçu tamit kan. man xam nga lan laay def. Mhm. mooy musique. nekk ci ak sama manager di jóg ak daanu mais ñi lay xeex doo leen lijjante parce que soo leen lijjantee des ginnaaw. Mhm. mais nag du ñàkk nga xam ne ñii. Mhm. dañoo taxaw pour yàqal ma. wante nag yàlla moom lu mu tudd si nit ala kulli alim day am kenn mënu ci dara. la moo tax Tafa Dabo euh, maanaam Tafa Dabo autant pour moi Tafa Art Vision bi mu jëlee yeneen xale yi jigéen ñi la moo tax yow gisuñu la fa. waaw man ba tey loolu xaw mais yow xale nga ndaw nga sa baat may na la ko. ba tey sénégalais xam nañ la. waa mais ba tey man xamuma lan moo tax. parce que li ma la ne musique sénégalais. Mhm. dafa metti ba dafa bëri ay affaires yu nekk ci biir. dafa bëri affaire yu nekk ci biir. te mhm. boo nekkee jigéen am looy daw. Mhm. lu bari da koy da koy da nga koy mooy mës naa dégg benn artiste ko wax mu ne. artiste art bi boo ci nekkee am looy bañ. du bëri duñ la ci boole. loo looy bañ. lan nga war a bañ boo nekkee ci aar bi. boo gëmee sa bopp nekk jigéen. Mhm. am looy dawale sa bopp. Mhm. lu bari duñ ci boole. te man dama bokk ci famille boo xam ne erreur waruma. Mhm. su ma déggee li ngay wax ma dafa mel ni que dafa am yoo xam ne dafa nekk ci suuf mais loolu boo ko bañee rek dañ li mel ni ku la xeex. loolu laa la aar dafa bari aar li ci nekk moo bari. aar li ci nekk. dafa bari. lépp kenn mënu koo wax. Mhm. waaye nag dañuy jund ñi ne leen. Mhm. boo amee looy bañ pour nga mhm. dem ci aar day metti loolu am na day compliqué. surtout maa nga nekk jigéen. man nag maa ngi nii dara tax dara mënuma tax a def lu ma war a def déedéet. sama yoon bu waree ñëw day ñëw fi ma bëgg a egg su waree ñëw day ñëw te kenn du ci mën dara. kon nañu rafetal. Euh, ba tey rek dama lay rejoindre. wala sax damay daal di des foofu nga xam ne fa nga nekk parce que dégg naa ñu ne que ne dañ la boole woon ci ay affiche ñu jékki-jékki daal di annulé affiche yooyu. kon yow war ngaa xam ñu ko ñu ko ñu ko def tamit parce que bu demee ba boole la ci yenn affiche yi ba ñu boole la yenn affiche yi ba yow. nga am mm. ci yaakaar. Mm-hmm. nga jékki gis ñu annulé ko boobu tas yaakaar am na fa xol bu jeex am na fa. Mm-hmm. kon yow xam nga bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk di la xeex ci suuf. amaana nag ba ngay wax loolu waxoo ko woon pour dara waaye noonu la ko nit ñi gisee. waaw mooy li ma la wax <laughs> lépp kenn mënu koo wax. kani danga xam lu bari. massa massa massa kani bul yàq émission bi. gis nañ avant dama li tax ma ni Sonko Sonko day jàmbaar te aar ku ci nekk il faut nga nekk jàmbaar loolu moo tax ma dëggal sama bopp ne artistes yi may seen Sonko. te bi ma ko defee tamit lu bari port yu bari tëj nañ ko mënatuñu lijjanti dara man ak sama manager fu ñu dugg mu dëgër. firndeelaat jël na ci sama maam fu ma toog damay damay sagoo sama maam parce que xam naa li mu def ci musique mhm. waaye dafa am yoo xamante ne dañ lay jaay doole ci lu mu mën a doon mhm. te musique la ñu nekk te musique du ay fo nekkul loo xamante ne affaire diine la mhm. da ngay gis ay artistes yoo xam ne dañuy defante di ji ko jaayante te pourtant loolu du am mais pourquoi man man loolu lay laaj lan loolu ko waxee yu bëri jot nañ ko ci. ah bon duñ la yow moom dangay wax ba sonn may kenn du la ci boole. man xaw ma ay artistes lañ xaw ma mais jot naa ay messages Tafa mi xam na ci dara ñu jot ay menaces. loolu sans confirmer carrément que ne yow li nga wax am na ay répercussions. mi ngi noonu parce que man li ma wax aayul ku ci nekk war nga mën a gëm sa bopp nga wax ni man. lii laa bëgg def mhm. mais lan moo tax ñu ñuy jaay doole ñun ay artistes lañ ay ndaw lañ mhm. dañoo toll ci génn mhm. te doon ko nag ci suñuy maam kon dañ ñu war a teg loxo mais waruñu ñu xeex ci loolu parce que loolu pour man du dara ay artistes ngi fi di defante lu ne teewul loolu du am bëggoon nañ la suba teel. moom wax dëgg yàlla woowaguñ ma. amul beneen woon label tamit bu la bëggoon na ay label yu ma doon woo. mais Tafa moo ne ma rek nañu xaar ñu xool affaire yi nan lay demee parce que tamit am na ci label yoo xamante ne tamit dañ lay tardeel des fois. loolu moo tax Tafa ne ma xaaral ñu xool ba xam ci lan la ñuy dugg mais label yu bari doon nañ ñu woo tamit. label yi jamono bii ñoom dañoo retiré wu après li nga waxee noonu wala ba léegi ñoom dañoo resté. non ba tey ñu ngi woote mais ni mu war a doxee moo des parce que li ñu wax la. Mhm. maanaam porte yu bëri la ñu tëjal këni ay spectacle yu ñuy def samay morom artistes yi ci dem duñ ma ci boole su ma waree playback fenn bu ñu xoolee gis ni man la duñ ma ci boole parce que li ma wax. kon jël nañ sa wax yóbbu ko foo xam ne. eggu fa yeggu fa ñu ngi noonu loolu nag laay wax ci. Mm-hmm. li ma ne artistes yi maay seen sonko te jëlewuma ko dara parce que sonko li tax ma wax ne artistes yi may seen sonko jom gi mu àndal ak fit bi mu àndal ku ci nekk nag sañ ngaa wax li ne ci yow mm-hmm. Mm-hmm. opposition avec pouvoir. Mhm. mën na nekk loolu parce que jamono yooyu pour nit tudd Sonko problème la. Mhm. dafa metti woon. Mhm. te man bi ma koy wax dama jël ci moom référence que ni nit ku am jom la te jom bi mu am moo ko eggale fii mu egg tey. moo tax ma taxaw ne artistes yi maay seen Sonko te bi ma ko waxee nag dafa xam na si dara suñuy bunt yu bari tëju na. ci jamono yooyu noonu. est-ce que gënul woon rafet nga wax que ne boo bañoon lii yëpp dal la. Euh, est-ce que gënu woon rafet nga ne artiste yëpp man maay seen njagambay parce que boo waxoon ne man maay seen njagambay daal di référé ci nga xam ne mooy sa maam amaana tey lii du la dal. waaye xam naa ni artistes yi xam nañ ne maay seen njagambay ndax ku juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam. Mhm. te njagambay mooy sama maam rek doy na kàddaante. Mhm. ñoom xam nañ ko xam nañ ni ci famille njagambay laa jóge mhm. waaye référence la tamit nga gis keneen koo xamante ni mi ngi yëngu ci dara am na ci fit am na ci jom. nga roy ci moom. parce que royukaay du doy. tey jii da ngay da ngay fan yu suñu papa Youssou Ndour mhm. jël ki ne teg suñu maam ki ne laam jël ñooñu ñëpp teg te ku ci mhm. nekk am na lu nekk ci yow mhm. lool la may Njaga Mbay rek référence la mais tamit du tee dinañ xoolaat ñeneen ak ñeneen parce que fit du doy mu ngi noonu damay damay daal di rek soobaat ci li nga xam ne mooy sànq waxoon naa ko euh, wàllum effort bi parce que gisoon que ne nañ que ne première édition bi rek moo jàll des na yeneen édition ak yeneen édition ki nga xam ne mooy Art Vision bu defaatee li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy deuxième édition bi est-ce que yow loolu mën nañ la faa xaar. waa loolu liggéeyu Tapha la sama liggéey manager la man lépp luy liggéey pare naa pour def ko parce que dama dugg ci aar damaa dugg ci aar kon du ma ne kii moo may kii moo may jàppale wala kee moom déedéet ku ñëw pour bëgg a liggéey ak ñun dañuy liggéey parce que liggéey lañ bëgg ñoom tey bu ñu taxawee pour bëgg a ak man sama manager la ñuy waxal léegi moom lu mu décidé rek ñu def loolu pour pour pour daal di wàccee tuuti tension yi parce que gis nañ jamono bii sa bi tooy na est que doo mayaat leen rek internet yi sa bi tooy na mayaat leen leen rek pour ñoom tamit ñu mën a kontaan man sama yoon dafa metti lu ne laa ci daaj sama yoon dafa metti lu ne laa ci daaj kon lan moo waral may dem nga ni ma du ma dem jëral la lu ne aha lan laa la def yéene naa la jàmm mhm. yéene naa la salaam yow nii ma bañ te defuma la daara lan moo tax nga di ma yéet safaane te defuma la daara waaw waaw fu ma nekk di ci góorgóorlu nga ni ma du foofu waaw waaw di ma yàkkal loolu ñaaw na su ma dee góorgóorlu ne ci aar bi de way nge doonu samay maam nga ni ma du ma dem lan moo waral lii lii dafa ñaaw lii ñaaw na nañu yéenante jàmm waaw waaw tey defante lu baax àdduna bi amul solo ku ci mel ni alaaji njaga mbay dem na wéetal na Sénégal ku ci mel ni ndey mari njaay gawlo dem na wéetal na Sénégal kon lan moo tax ñun ndaw ñi mënuñoo bokku ndey ak baay bëggante suñu biir jàppante suñu biir loolooy li gën waaw waaw princesse déglu ma ma woy maa doon sama mbaam kar fak bangak boli mama dug njaay daale ndaat naan ndaat naan ndaat naan maam booyo xajoon nga fee ay ndugu daaleek takko daali sën mi ci mbayaar maam boo dundoon ba tey ji lii may dund maam du dal mbay biram jéeme daali wéetal ngab ma maam manqué ngab ma ah tafa daa bo seede mama way sama maam jee firndeel nga lépp jamono bi eh, firndeel nga lépp nee nañu li ne ci maam mm. sa da koy jël eh, macha allah jël nga ko lépp mat na. Mm-hmm. macha allah euh, ba tey rek ci web info TV chaîne bu mag bi mm-hmm. euh, sama dernière question nag laay laay daal di andi. Mm-hmm. parce que xam nga man moom man maay princesse. man moom ku ma xamul dégg nga ma. damay def ay investigation damay wër damay dem damay indi. dama def samay investigation nag euh, ñu daal di gis lenn ñu ne am na ay jamono. dañ laa xawoon a laal tuuti. mu tee lu bari. metti woon lool aussi lan nga ci wax. Massa Kane Massa. parce que xolam dafa tooy et c'est tout à fait normal en fait c'est tout à fait normal xëy na nag question bi ma ko posé moo am lu bari loo xam ne dafa suscité ci moom mais nag fale ma posé la ko Kani Massa. Hmm? question bi ma posé doy na waa trop. tollu guddi gi yoo xam ne dafa metti woon torop si man mhm. su ma gëstoo sama yaay rek laay gis mhm. moo tax mënuma si sax wax kii bi question bi dafa ma ma feebar sonn ba bëgg a dee mhm. ma metti dafa mi xam na li may wax tëdd naa ay weer yoo xam ne mënuma dara waaye noonu question bi moom est que xam nga ñu la defoon loolu non xaw ma parce que sama baat mënuma woon sax wax nit dégg ma mhm. ma changé doon beneen nit mhm. ma doon beneen nit dafa am xam na li may wax sonn feebar naa ay weer yoo xamante ne ni mënuma def musique mhm. ci studio la ma dalee ndeysaan damaa dem studio di enregistré benn son bu waroon a génn bi ma demee ñu war a def atelier yu xool ci su bëgg bi may ñëw waxuma borom studio bi sax dafa jaaxle daf ne ma waaye Kani sa affaire yi gën a gaaw. Mhm. tafaa ne ma di nga toog de dinañ enregistré parce que yow. Mhm. ni ma la gisee nii xam naa ni kii waaye di nga ma ne ko tafaa mënuma de. te suñ ko defee tamit du baax bàyyi ma ma dem ci sama yaay ba tane. Mhm. mu ne ma waa baax na mu xëy daal di dem ci sama yaay mi ngi tiwaawan. nekk fa ak moom. tout le temps moom mooy jug di jug ci doomam. di jug ci doomam ba tey alhamdulilah yàlla def na ma tane macha allah. mais jàppoon nañ ma mystiquement sama baat bi mënuma woon wax. feebaroon naa mais macha allah léegi tane naa bu baax. mu nga nekkee ci guddi yooyu mu lëndëm torop metti lool est-ce que à part ak à sa yaay am na ñeneen ñoo xam ne fekk si nañ la ci. à sama yaay. am na ñu ma ci fekk si. wax dëgg yàlla ñi ko yëg. fekk si nañ ma ci macha allah. Mhm. ba léegi tane naa bu baax sant yàlla. parce que mhm. mënoon naa bañ a dañ. Mhm. mais macha allah tane naa bu baax a baax a baax. di sant yàlla nag di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ma wér. ba ma eggale sama mbëbët allahumma amiin ñan ñoo ñan ñoo la tegoon loolu ak lan moo tax ñu teg la ko am na benn raison boo xam ne. moo tax ñu teg la ko dañoo bëggoon yemale foofu sa baat sa carrière lan moo taxoon ñu teg la loolu. waaye yàlla moo ne du fi yam mhm. ñi ko def même su ma leen xamoon sax duma toog naan ñii la mhm. parce que yàlla mi def ba ma tane ba mën a taxaw fii tey ji yoon micro di wax mhm. moom laay santaat moom suñu borom parce que ñoom seen mbébét ak li ñu doon bëgg bu amoon tey du ma taxaw fii di wax mais nag sant naa yàlla ba tane naa bu baax a baax a baax léegi macha allah. xam nga daf la dafa am loo xam ne daf la daloon nee nañ nag nit kenn du ko nax ñaari yoon jamono bii ñaana ñu la ko yàlla est-ce que yow yaa ngi jug si sa bopp di def yoo xam ne sa baat bi inch beneen yoon incha allah kenn du ko tee. waaw parce que Sénégal la nekk kan rek macha allah. Mhm. ba ma demee ci sama wetu yaay. Mhm. jàppale na ma ba tane naa. kon loolu ma daloon ba ma sàggan ba loolu dal ma xëy na mhm. dootuma dalaat incha allah. damay ñaan yàlla suñu borom rek ñu gën ma dolli ñaan. gën ma teg loxo. ba suñu mbébét yi ñuy mbébét ñu eggale ko ci jàmm. loolu rek laay ñaan. allahumma amiin dama waxoon que ne bii mooy sama dernière question waaye dama ciy dugalaat beneen. Mhm. parce que dañu nekk rek sànq wax naa ko dañu nekk dëkk boo xam ne boo amul bras long. Mhm. amoo ku la jàppale. Mhm. amoo ñu nekk sa ginnaaw day xaw a metti. lan mooy sa motivation. wala kan moo lay motiver bokk. waa li may motiver mooy. Euh, ñun li ma la wax léegi. ne la soxla nañu jàppale. benn lam du yëngu. Mhm. te fii moom li ma la wax léegi rek ku ñu jàppale rek moo am. Mhm. soxla nañu jàppale bu baax a baax a baax amuñu producteur ñooy dawal suñuy bopp suñuy clip ñoo koy defal suñu bopp. Mhm. man ak Tafa sama yaay jeex na. kon kooku xam nga ne bu amee ku ko jàppale mu cër parce que affaire yi tamit dëgg la di nga bëgg mais am moyen tuuti tamit da ciy baax. ñi nga xam ne bëggoon nañu sama maam. sëtam mi ngi nii mi ngi def aar. nañ ci jàpp te xam ne moom affaire yi moom. Mhm. incha allah ci kanam yàlla mën naa def lépp baax. parce que ñi fi siiw tey ak ñi ñuy dégg ñëpp jaar nañ foo xam ne tey buñ la ko doon nettali nga ne déedéet. Mhm. dara xëyul xëy sotti te yoonu ndaw du gaaw. Mhm. donc ñun nag ay xale lañ ñu ngi ci yoon soxla nañu jàppale. waa di ñaanal ñëpp nag jàmm. Mm-hmm. amoo. Ah, mm-hmm. mm-hmm. amiin man que damaa xam sama maam ci bëgg njaboot bu mu bëggoon njaboot mhm. sama maam fu mu tardé njaboot moo ko fa tardé mm-hmm. te bi muy dund fu mu mësaan a dem yóbbu nañu fa mm-hmm. kon tey bi mu ñu wanee ginnaaw la ñu gis vide ci suñu ginnaaw que ni tey bu doon dund sëtam bi di def li muy def du ko mm-hmm. seetaan am na kenn si am na waa am na ñu ma dégg am na ñu ma déggul. artistes yu bari woo nañ ma encouragé ma mais xam nga toog fii di wax naan kii la <laughs> ak kii day xaw a compliqué mais macha allah am na ñu ma woo mais nag ki nga xamante ni mooy suñu papa Youssou Ndour moom laa gisagul mm. moom gisanteeguñu. te moom mën naa ni lu bari lu nekk ci moom sama maam bokk na ci ñi ko ñi ko defar macha allah parce que nijaayam la Youssou Ndour sama maam nijaayam la ñuy mbokku gawlo mhm. xëy na nag dafa amagul jot parce que ñoom artistes yu mag yi des fois li ñuy toog ci dëkk bi sax du bari mais xelam xam naa ni mi ngi ci man moom laa gisagul depuis boobu ba léegi wax dëgg yàlla mais nag artistes yu bari. Mhm. Mmh. waa ñu ngi ci projet album ñu ngi ci projet tamit ay single incha allah yooyu yëpp ñu ngi ci mais li ma xawoon tawat moo tax yu bari eggul woon mais léegi sant yàlla ba nga xamante ni yàlla may na ma tan bu baax léegi dañuy continuer def li nga xamante ni moom la ñu doon programmé muy album mën nañu njëkk a génne single bi nag incha allah loolu la bëgg bu neexee yàlla. Mmh. Euh, lan mooy sa message lan ngay lan ngay lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoo lay seetaan lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoo la war a jàppale. waa li may dénk ñi ma doon seetaan maa ngi leen di wax ne man la Kany fay maa ngi leen di jëfalaat bu baax a baax te di leen baalu àq. Mm-hmm. Euh, di gërëm nag ñi nga xam ne fu ma jógee ñu jóg sonn ci man muy yaay booy borom salon bëgg fàllu coiffure. Mm-hmm. nekk fii ci parcelle unité 19 ku bëgg sa kanam baax. boo ñëwee mu defaral la ba nga jongo ma yow xam naa ni princesse dinaa la fa yóbbu incha allah ak sister <laughs> bu baax a baax mhm. incha allah euh, di wax tamit euh, di gërëm tamit ma mami Babacar mhm. mi nga xam ne gaam yi may diwoo yëpp moo ma koy jox moom tamit di ma jàppale borom gaam Aïcha mhm. moom tamit maa ngi koy remercier parce que tamit nit ki su fekkente ne da nga yëngu ci dara ay nit taxaw pour jàppale la foo toog da nga leen di tudd wax ne ñii dañoo nekk sama ginnaaw ba dara dul dara Euh, donc maa ngi leen di gërëm ñoom tamit bu baax a baax. Mm-hmm. di leen jaajëfal. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ngi noonu ñu ngi lay remercier bu baax a baax a yow Kani fay di sët ki nga xam ne mooy euh, Ndiaga fay gis nañ dalal bi nga xam ne dalal nañu ko fii mhm. di remercier bu baax di remercier nag sa manager mhm. ki nga xam ne mooy Tafa moo ñu ubbil buntu yi mhm. moo ñu yombalal li nga xam ne tamit mooy interview bi ñu ngi koy bëggee bu baax di ko gërëm bu baax a baax a baax waaye nag di gërëm ki nga xam ne moo nekk ci ginnaaw nee naa image bu rafetee moom la son bi su baaxee moom la muy Jules l'international kenn du moom ci man waaye tamit nuyu suñu PDG Sadio Fati Euh, yàlla na ko yàlla guddal fanam mu nekkal ñu fi baax ñu tamit baax ci ñun tamit euh, di nuy Aba ak Idi Dem lañu jox dig daje incha allah ci beneen édition princesse et ses sorties bisous à la prochaine. is what na la eh, ani zil amini lido yo mu gaaj ñi international bi eh, wi leen mama way ndax naan yi waaw zil kaay ma woo la presse sa ngit ni lu yëngu lu ko yëngal la ko ëpp doole jàmbaar jaa ngi ne bàkk woon na mu woo yaayeen gore Web TV International